mbir mu doy xew ci dëkk bu sell bii di Touba génn góor moo faatu ci benn oto autobus mi ngi wuyoo ci kër Gueye ay atam tolloon ci juróom-benn fukk ak ñett mu nekkoon oto boo xam ne da doon daw di diggante dakaar ak Touba moom Babacar Gueye moomee gannaaw ba mu bàyyeekoo dakaar ngir ñëw ci dëkk bu sell bii di Touba bi ñëwee ba dugg Touba ba romb tuuti garage Dakar bu njëkk bi ci la nag ñi nekkee ci oto bi daal di seetlu ne moom Babacar Gueye moomee dundatul ci noone nag ca la ñu gaawtu woo ñoom itam ba ñu sappier ay matuwaay am solo yoo xam ne jël nañu ko ngir génne néew Babacar Gueye moomee ci orel boobee ci noone ca la ko yóbbee ci morgu hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba ba léegi rek li leen ëlëm lan moo ko faat ay atam tolloon ci juróom-benn fukki ak ñett ñi xam ne rek ñooy toppatoo lu jëm ci wàlluk wér-gu-yaram ci diwaan gi ak saytu di ay prélèvement dinañu ko amal ci néew kër Gueye ba xam dëgg-dëgg lan moo ko faat rawatina jamono ji ci tolluwaay jàngoroy covid 19 ji moo ko faat ak lu mën di xew di xibaar bu ñuy toppandi